nga ànd ak temps bi da ngay yeewu sa xol neex loolu mooy al ustaas loolu mooy ñi nga xam ne dañ doon génne dara ci alxuraan firil la ko wax la ko ba pare teg la ci yoon waaye ustaas euh, temps moderne yi nga xam ne euh, fu showbiz nekk ñu nekk fa. naam daraame. lu dugub ne ñu ne ci loolu du ustaas ustaas du métier c'est pas doo ko def métier. du métier nga la moo sa métier nga ne man ustaas non non non da nga war am beneen métier lee nga ciy def nii rek pour jaamu ci parce que moomoo ko xam loo xam ne da nga fekk yàlla bind ko ba pare nga ciy fayeeku sax loolu xaalis boobu waroo ko waroo waroo <laughs> ko sax lekk. oustaz moderne diine ak jamono bu ñu avancé si beneen point bi ñu wax si Mbodja Mbaye mi nga xam ne à chaque fois day joxe ay conseils pour ñu nekk si mariage vu que temps yi ñu ngi wax que ni sugar daddy ak xale jigéen ñi moom na dafa ñëwee beneen côté mu ni euh, jeune garçon boobu xale bu góor bu si ñam euh, kii mère. wala jéeg mu ni xale bu góor bu si ñam jeeg dootoo ko bàyyi fi ngay romb xale ndaw yi dem comme tamit paa bu si ñam xale bu ndaw dootoo faaleeti jeeg Mbodja Mbaye loolu la wax. Mbodja Mbaye dafa réew. parce que yenn yi xamadi la. xamadi weesu islaama dégg nga toog naan ay ñam. parce que tamit dafa am yoo xam ne réewande la. kii dafa réew. parce que bu toogee bay toog ay nit toog nga naan xale bu ñam lii war a xale bu góor bu ci ñam lii loolu man maanaam moom elle n'est du koo xam ne dañ ko war a jox sax kàddu muy wax. parce que am na loo xam ne c'est dafa dafa du dul suñu jikkoo parce que kenn ku nekk boo gëstoo li muy wax nii da nga koy jëlu sa koñ ñoo xam ne ñoo mag seen ay seen jëkkër yi ñoo leen mag ñoo xam ne ñoo mag seen jabar ñoo ñoo astafurlah ñoo xam ne seen jabar yi ñoo mag seen jëkkër yi. mais am na yoo xam ne terme bi laa bëgg wax ne mboobu dafa réew lii mu wax nii dafa ku xamade la parce que nit warul wax lii ci télévision àdduna dina dégg ngay wax naan ay nit bu ñemee lii war a kii bu ñemee pense que ne manque d'éducation la ak manque d'orientation bu ñu doon joxe euh, disque disque d'or xamadi moo ko jël. lii moo tax keroog ma ne la TikTok bi ni ñu ko tëjee man man neexoon na ma trop. mais ba tey dañ ko tëj parce que boo jaaru par VPN mënoo connecté ko en tout cas wax daal des koy woddu ah, parce que war ngay sàmm sa sa sa lay déglu moo tax te moom defe naa bii mooy deuxième fois yoo xamante ne ñu ngi koy ŋaañi ci genre kàddu yoo xam ne mm-hmm. ay terme yu yu yu graaw lay utiliser mais dafay sëy mm-hmm. ay terme yu graaw lay utiliser defe naa Jamra sax est-ce que amu fi woon ay kii at Jamra waaw donc moo tax ay kàddu daal jar na rafetal parce que koo xamante ne yow da nga wax ñëpp di la dégg donc war nga xool say say sa làmmiñ la nga siy génnee parce que nag dafa am wax yoo xam ne waxase ba génn mënatul a defaru de. mais comme comme jam amoon na fi problème ak Jamra mu waxaat lii tey. si amoon na fi. ana Jamra man daal man ah. sa bopp ah, ah, a fi di ko ziar bëri ma Matar Gueye. waaw dafa sant. Mantu. wala yow tu passes <laughs> ba tey ñu continuer ci troisième point bi nga xam ne mooy Baba Amdi def na sortie depuis Myrma def sortie wax que ni moom ak Baba Amdi dañoo amoon relation mm-hmm. Mm-hmm. Baba depuis lors tontuwul mais dafa génne benn son mu tuddee ko coupable ou pa je préfère le silence mm. moom loolu la tontu comme genre tontu la léegi nañu ni tontu na Myrma parce que tamit Myrma man dama foog ni dafa mélanger li nga xam ni mooy relation professionnelle ak relation amoureuse parce que boo seqee ak nit ki amour mu wor la loolu pour man yéen ñaar la mais waroo génn ci public bi nga naan producteurs yi dañuy woraate dañu lay exploiter parce que yow da nga bëgg musique nee baaba moom dafa bëgg musique baaba jël ko di ko produire ci la ko exploiter ba moom mu jox ko boppam ah moom Myrma moom Myrma moo tax mooy mu ngi jooy rek moom depuis loo ci jooy la dëkk day jooy rek <laughs> maa ngi leen ko moo tax ma ngay jooy massa ah, lépp ci showbiz bi lay xewee. boo ko siy dee sax dootal li mais nag gis nga foofu noonu pour man Myrma moo mooy fautif. Mm-hmm.